لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون bokk jullit yi ginnaaw yi sant yàlla subhaanahu wa taala ñu ci sang-sang yi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mawdu bi ñu leen indi dafay dëppoo ak at bi ñu toll waaye daf leen ak weer ñu toll ci àdduna ndax yàlla subhaanahu wa taala moom moo dogal ci dogalam seydina muhammad sallallahu alayhi wa fekk baax màkka juddoo màkka fekk fa baax waaye li nga xam ne moom mooy mission mu ngi ko mottalee fi nga xam ne mooy almadina al munawwara mission boobu nag dafa am lu bari loo xam ne nii am na ko ci ay jàngale jàngale yooyu la ñuy jàngal tey ci hijra bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko moom ak ay saxaabam buñ ñu nee hijra moom mooy jógee place dem place waaye hijra ci islaam moom mooy jógee Makka bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee Makka dem fi nga xam ne moom mooy Madina ginnaaw hijra bi nga xam ne moom la jullit bi wala boog ki nga xam ne moo nekk ci islaam jógee ci li nga xam ne moom mooy safar nekk ci wedd yàlla nekk ci kéefër waaye nekk ci bokkaale yàlla dugg jóge fa dugg ci li nga xam ne mooy topp yàlla waaye topp li nga xam ne mooy jug gi waaye nekk ci diine lislaam su ko defee yonent bi saa salaam ay waxtaanam li nga xam ne dara moo tax yàlla subhaanahu subhaanahu wa taala ko wax moom sallallahu jël exemple ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitu di ko xamal ne nettali yi nga xam ne mooy nettali yonent yu jëkk yi nettali ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitu woon ci ñu baax njàngale la ñeel borom xel yi waaye nekkul ay léeb ak lippool yoo xam ne dañ ko fente comme ni ko ñenn yi defee ay compte yoo xam ne dañ koy fente waaye dafa nekk loo xam ne lii lu reyal nga xam ne dafay dëggal li nga xam ne moo ko woon dëggal li nga xam ne moo moo jiitu woon ci ay nubuwaat waaye tamit di taxale diggante dëgg ak li nga xam ne mooy leen di leeral bépp mbir mu nekk njub tamit ak yërmande ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm yàlla subhaanahu wa kon ci loolu lañuy jàngate li nga xam ne moom mooy histoire yonent bi sallallahu alayhi wa ak xeetam waaye histoire ak li nga xam ne mooy islam histoire am ak ummatu islam yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw Makka wala boog bi ñu koy yónni yàlla dafa def mu am ñeent fukki at nga xam ne moom mooy at mi nga xam ne ci la ñuy yónnee wala boog yàlla subhaanahu wa taala daay mu des nga xam ne moom wa yukallimu naasa fil mahdi wa kahlan moom moo ki nga xam ne moom moo doon wax nit ñi fekk na moom mu ci ay laytaayam kooku exception la ci yonent yi waaye yonent yi yàlla subhaanahu wa mu ngi daan yónni si bi bu doole Seydina Yusuf alayhi salaam yàlla subhaanahu wa taala nee na walammaa balagha ashuddahu wastawaa aataynaahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi al-muhsinin mu demee ba ci digg dooleem yemoo ak dooleem ak xelam wala ko xam-xamam ak dooleem yemoo yàlla subhanahu wa taala na daal di ko faye li nga xam ne mooy rafetal mu nekkoon di ko rafetal ci la ko yàlla programmé ci mu nekk yonent ak li nga xam ne dal na ko lépp kon ki nga xam ne moom lañuy waxtaanee waxtaane moom mooy sangu yi moom mooy ki woo aw xeetam jëmal leen ci li nga xam ne mooy jub leen ci li nga xam ne moom mooy lëndëmu weddi yàlla yóbbu leen ci li nga xam ne mooy nuuru islam wala boog li nga xam ne mooy leeru islam ak ngëm yàlla muy woote waaye bu fekkee ne nag ci ci wé wooteem boobu am na ñu bari ñoo xam ne dañ ko weddi woon am na ñenn ñoo xam ne ñi gëmoon nañ ko ci aw xeetam loolu bi mu amee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm ñu leen di persécuté wala boog ñu leen di bundu xataal ci fi nga xam ne moom mooy seen réew di leen bundu xataal guddi bëccëg maanaam di leen sonal li nga xam ne ñoom ñooy yéefari du leen teg bépp xeetu métti ndax dañu bàyyi woon li nga xam ne mooy seen diine maam comme ni ñu ko doon waxee waaye gëm li nga xam ne mooy tawhid moom mooy baatu borom bi subhaanahu wa gëm ki nga xam ne mooy yàlla subhaanahu wa taala loolu waral ñu leen di sonal guddi ak bëccëg ñu daal di ñëw seen yonent bi salaam tiis ko wala boog gis ko loolu nga xam ne mooy tiis bi dal si seen kaw. su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ci ay jéego en tant que njiit njiit ci l'islam wala mu njiit en général dafa war a nekk koo xam ne kii day nekk exemple exemplaire exemplarité la war a wane waaye rawatina bu fekkee dafa nekk njiit loo xam ne day njiit bu islam kon ñi nga xam ne ñu jiite jiite nit ñi tamit dañu war a roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa soxla yi askan wi nekk seen soxla yonent bi sallallahu alayhi daal sol li nga xam biñ ko waxee loolu mu xam ne jóg jot la su ko defee mu daal di dem fi nga xam ne mooy Taif dëkk la boo xam ne bii dafa jege woon li nga xam ne mooy Makka mu daal di dem fi nga xam ne mooy Taif nga xam ne ay mbokkam ñu la fa ay nijaay bi mu demee mu sàkk ci ñoom li nga xam ne mooy asile buñ ne moom mooy mu ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay saxaabaam li nga xam ne ñoo door a dugg ci islam su ko defee ñu daal di utal leen kër foofu bi ñu demee. bi mu demee foofu wax ak ñoom ci teg ñu ak ñoom ci néeg ñu daal di ko vilipender maanaam ñu génnee li nga xam ne moom mooy waxtaan wa ca ma ca ëtt ba ca pénc ma su ko defee ñu boole ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy dof yi ñu manqué ci xeet ci seen dëkk boobu la waaye boole ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy seen xale comme ñoom gëmuñu woon Yonent bi saa salaam ñu daal di ko boole ak ñooñu su ko defee ñu daal di ko xàñ ay xeer mu mel ni dox bu ñuy topp di ko sànni ay sallallahu alayhi wa sallam bi loolu amee yonent bi saa salaam di dox di maanaam dellu fi nga xam ne mooy màkk bi mu delloo màkk tamit wala boog bi muy dellu màkk am na loo xam ne ni xew na ci diggante bi am na koo xam ne kii tuubal na ko ci yoon wi am na koo xam ne addas benn jaam la woon bu ñuy wax addas tuubal na ko ci yoon wi ndax moom dafa amoon diine avant yonent bi saa salaam di ñëw moom mu ngi dëkkoon dëkk bu ñuy wax Niinawa nga xam ne yonent yàlla Yunus moom mooy ki nga xam ne moom moo fa moo fa nekkoon yonent bi saa salaam dafa am xissa wala boog dafa am nettali ak jeune boobu bi mu ñëwee fekk mu ngi romb benn tool mu mag mu ñëw ci tool bi mu wax ak xale bi ak jeune bi ne ko pour mu may ko ndox bu ñu ko mayee ndox mu daal di naan bi muy naan mu ne bismillah xale bi jaaxle ndax mu ngi door a dégg loo xam ne xamoon na ko mu ne ko kàddu gi nga wax nii xamoon naa ko su ko defee mu daal di waxtaan ak moom mu ne ko fa nga dëkk yonent bi saa salaam laaj ko fi mu dëkk su ko defee mu tegtal ko dëkk ba mu ne ko dëkk boobu sama dëkk mbokk yunus la yunus ibn Matta benn yonent la ci yonent yi su ko defee yonent bi saa salaam waxtaan ak moom ci diine lislaam mu dugg ci diine lislaam kooku kon li muy wane tamit mooy dem bi nga xam ne demoon na ko fi nga xam ne mooy taarif nekkul dem koo xam ne bi dafa dafa nax saay waaye am na ci li nga xam ne moom mooy tuubu benn nit nga xam ne kenn koo xam ne kii tuub na ci lislaam rek dafa mel ni xeet bi yëpp moom moo tuub ndax yàlla subhana taala nee na ku dekkil benn bakkan dafa mel ni da nga dekkil xeet bi yëpp ginnaaw loolu mu seet yeneen jaaruwaay mu seet yeneen yoon yoo xam ne yi fa lay jaar pour convaincre ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wër ci ay dëkk pour mën a gàddaay dem foofu xam na ne màkk mënatu si toog te xam nañ ko su ko defee aj bi bu mu ñëwee tamit muy gaaral ñi nga xam ne ñoom ñooy ujjaaj nga xam ne gëmuñu woon yàlla mais terewul dañ doon di wër li nga xam ne moom mooy kër bi ci ay tàccu ak ay way loolu moom moo nekkoon seen seen seen seen seen aj wa ma kaana salaatuhum indal bayt illa mukaan wa tasdiya yàlla moom moo wax loolu seen wër kaaba gi wala boog seen ziar kaaba gi nekk lu dul ay way ak ay fecc kon ñoom doon nañ ñëw di ziar si kaaba gi waaye xamuñ woon sax seen objectif mais xamuñu woon ne yàlla subhanahu wa taala lañ war a tawaafal mais bi loolu amee yonent bi saa salaam xàddiwul mu daal di waxtaan ak gars yi maanaam muy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ujaaj bi wër di leen dab si yoon yi di leen koj muy waxtaan ak ñoom waaye comme ci gaaral rek fekk ne yéefar yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon biir Màkka jiitu nañ ci yow su ko defee ñu daal di leen weddiloo yonent bi avant ñu koy gis loolu bi mu amee xàttiwul tamit mu daal di takk wala boog mu daal di yebal xelam dem ci benn buur bu baax boo xam ne dafa nekkoon Éthiopie nga xam ne moom mooy Abyssinie mu daal di yebal kooku nga euh, ñooñu nga xam ne ñoom ñooy ay saxaabam ñu nekk ci nombre dix ci gàntaay bu njëkk bi ñu di dem fi nga xam ne moom mooy Éthiopie mais malgré loolu tamit yéefar yi jëm nañ leen a dàq fi nga xam ne mooy Éthiopie pour lan pour delloo si leen ci réew mi waaye ki nga xam ne moom mooy buur bi comme ni ko yoon def saa salaam bi nit la koo xam ne kii kenn du tooñ ci kanamam ba loolu amee tamit bu daal di leen sàmm ñu toogaan ab diir ñu dellu siwaat fi nga xam ne mooy Makka maanaam fukki fukki nit ñooy nga xam ne demoon nañ ñu daal di dellu siwaat fi nga xam ne mooy Makka ñu toogaat tuuti daal di takkaat àndaat ak yeneen soixante-dix personnes ñu nekk quatre-vingts personnes yoo xam ne dañu gàddaay ci ñaareelu gàddaay bi demaat fi nga xam ne mooy Éthiopie bi ba tey ñu ngi uti suuf soo xam ne fii fa la ñu mën a amee li nga xam ne mooy tranquillité waaye jaamu fa borom bi subhaanahu wa ndax yonent bi sa sala euh, yàlla subhaanahu wa taala ëllëg yow man xiyaaru bu fekkee ne nit dafa ñëw fekkee ne toppul woon borom bi subhaanahu wa daf ko doon wax wala boog da wax ne ko xanaa sama suuf si yaatuwul woon ba nga mën a gàddaay maanaam képp koo xam ne kii persécuté nañ la si dëkk nga xam ne mënoo fa sa diine li la war moom mooy nga génn suuf soo suuf nga daal di réfugié beneen beneen suuf ndax yàlla subhana taala moom moom suuf yëpp gàddaay boobu ñaareel gàddaay bi des nañ fa li nga xam ne mooy sept ans muy juróom-ñaari at ci loolu ñu daal di dellu siwaat ci nga xam ne moom mooy Makka bi ñu ñëwee fekk nombre bi yàlla def mu ngi yokk dem nañ ba ci cent quatorze personnes su ko defee nombre bi daal di yokk waaye ñu xalaat fi nga xam ne moom mooy ci diggante bi yonent xalaat dem fi nga xam ne moom mooy Madina li ko waral tamit moom mooy ñoom dañu daan ñëw aj yonte bi xàddiwul benn yoon toog na lu ëpp juróomi at di topp ñi nga xam ne ñoom ñooy xabaar yi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ci aj gi di waxtaan ak ñoom di leen jéem a convaincre ci diine l'islam di leen ko gaaral ba bés rek bés ndax xàddiwul bés yàlla daal di leen daal ko ubbil xolu jaamam yi su ko defee waa xaws xawsu ak xajraj nekk ñoo xam ne ñoom ñoo njëkk a gëm diine l'islam ginnaaw waa Màkk su ko defee ñu daal di dugg ci li nga xam ne mooy diine diine l'islam at ma topp ñu ñëwaat ñu ñëwaan fi nga xam ne moom mooy aj indiwaale seen i mbokk indiwaale seen mbokk yu bëri bi ñu ñëwee ñu daal di dugg ci diine l'islam su ko defee ñu nekk nombre bu bëri nombre bu takku su ko defee bi ñu duggee ci diine l'islam yonente bi saa salaam xelam nag dem ci gàddaay ci dëkk boobu la defee li nga xam ne mooy Mus'ab ibn Umayr nekk jàmbaar ci jàmbaaru lislaam nga xam ne moom li nga xam ne moom mooy bànneex dund ko ci li nga xam ne mooy islam waaye dafa nekk koo xam ne kii dafa teel a tumuraanke ci biir diine donte sax ay waajuram ñu amoon alal lañ mu daal di bàyyi alal ji dem fi nga xam ne mooy Madina ndax histoire am aussi moom dafa maanaam nettaleem dafa am dafa am histoire bu bu yëngu bi ci nekk ndax moom dañ ko daan takk seen biir kër yaay ji da daan takk pour mu weddi yonent bi saa salaam waaye malgré loolu dafa résister wala dafa dëgër yóbbaale li nga xam ne mooy mooy ngoram ak diine. Mus'ab daal di dem di leen jàngal diine lislaam waaye di dugg ci kër yi ñi nga xam ne gëmuñu mu leen di waar di leen tuub tuubloo di leen duggloo ci li nga xam ne mooy mooy diine lislaam biñ demee nag ba sentir ne wala ba yëg ne ñoom Madina dëkk la boo xam ne bi war nañ fa mën a am li nga xam ne mooy intégrité wala boog dund boo xam ne gi bu dal la su ko defee ñu daal di takk yonent bi saa salaam ci noonu la yebalee mu daal di wax gaa yi ne mën ngeen a génn bu leen neexee su ko defee ngeen gàddaay dem fa lañ xam ne mooy Éthiopie ndax yàlla subhanahu wa wan na ko loolu wanoon na ko su ko defee waa Quraysh sentir wala boog ñu yëg li nga xam ne mooy danger bi nekk ci gaa yi daal di gàddaay parce que bu ñu gàddaayee mën nañ leen uti uti doole ñu daal di leen commencé di leen kocc di leen delloo si maanaam di leen di leen dab ci yoon yi di leen delloo si waat ci dëkk bi ñii ñu leen di bundu xataal ñii ñu leen ñu leen di yeew de def leen ñi nga xam ne dañ doon gàddaay tamit dañ doon demaale ak seen alal te loolu nekkul loo xam ne nii neexoon na waa waa Quraysh dañ ci jël histoire Umu Salama ak Abu Salama nga xam ne ñoom ñaar bi ñu nekkee di gàddaay di dem dañ leen daf ci yoon bi ñu leen dajee ñi nga xam ne ñoom ñooy waa kër Umu Salama dañu jël. seen doom bu jigéen waaye jëlaale seen sët su ko defee ñu daal di ñu daal di leen delloo ñoom ñaar waaye sax ñu séparé diggante yaay ji ak ak doom bi maanaam maam yi daal di cël ki nga xam ne mooy mooy sët waaye baay bi daal di gàddaay dem dem na leen continuer mu toog moom ak soxnaam ak doomam ak ak yàlla woo xam ne nii kenn gisul sa su ko defee ñuy jooy ci li nga xam ne mooy division bi nga xam ne divisé nañ ko seen famille. sooy bu moom tamit saxaaba la woon ci saxaaba yi gàddaay la mais tamit lu muy gàddaay moom dafa wane li nga xam ne mooy njàmbaar wane na ko Seydina Omar ibnu Xattaab wane na li nga xam ne mooy njàmbaar ci gàddaay yi nga xam ne def na ko Suhayb ar-Rumi moom moo génn bi mu génnee mu yëg ci benn montagne fekk gaa ngi koy dàq mu yëg ci kaw montagne ba génn li nga xam ne mooy arkam waaye génne li nga xam ne ay fitam yóbbu ñi nga xam ne mooy cavalier yi nga xam ne ñoo ko toppoon mu ne leen yéen ñëpp réeréewu leen ne man ko mën a jam laa te ku ma ci visé ci yéen dinaa la dinaa la dinaa la jam lenn moo mën a ne yor naa fi yor naa fi wala boog bàyyi naa fi nga xam ne mooy man euh, mani màkka bàyyi naa fa alal yoo xam ne ji bu ma leen ko bàyyee war ngeen moom ba mën a bàyyi ma dem bi mos su ko defee mu daal di leen tegtal fi nga xam ne fa la alal ja nekk ñu récupérer alal ji moom mu mu sobee bi mu demee ba jib fi nga xam ne mooy Madina yonent bi saa salaam yàlla subhaanahu wa taala wàccee li nga xam ne mooy alquran ci moom wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah wallahu raufum bil ibad yàlla ne am na ci nit ñi ñoo xam ne ñi dañuy jënde seen bopp li nga xam ne mooy gën mën a yàlla ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne moom moo gën a mën a jéggale maanaam Suhayb a rumi si moom la aaya boobu wàccee keroog Omar ibn Khattab tamit génn na en public mu ne képp koo xam ne kii bëgg nga sa doom nekk jirim képp koo xam ne kii bëgg nga sa soxna tënj la na na ma topp waaye kenn topp mu daal di génn mais am na ñu bëri ci saxaaba yi ñoo xam ne bi ñuy dem dañu préféré laaxatu dem ndax faiblesse bi nga xam ne moom la ñu amoon ci seen wàllu diine nga xam ne ñëpp dañu nekkoon contre ñoom te am woon kàttan yenn yi loolu moom moo waral ñii génn laxatu waaye ay exception quelques exceptions génn wane na ñoom ñu ngi dem kon ñoom ñëpp li nga xam ne moom moo leen yëkkati woon moom mooy ngërmande yàlla subhanahu wa taala te ñoom radiyallahu anhum wa radu anhu aqulu ma tasmauna wa astaghfirullah حسرة alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila din ginnaaw bi ñu waxee ci gàddaayu lenn saxaaba yi dinañ wax particulièrement ci gàddaayu yonent bi saa salaam ndax moom mooy li nga xam ne mooy seen jiit yonent bi saa salaam jamono bi mu bëggee gàddaay wala boog jamono bi saxaaba yi di gàddaay moom bëgg na gàddaay mais il fallait que mu am ndigal moom ndigalam ci kaw asamaan lay jóge wuute na ak ñun ñi nga xam ne dañuy xëy rek jël suñu décision personnelle ñaan yàlla mu defal ñu taw fee waaye yonent bi saa sallam mu naan def ko koy wax yu wa maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa Seydina Abubakar nga xam ne moom mooy xaritam benn bakkanam mu jóg pour def li nga xam ne mooy gàddaay mu tàgg yonent bi saa sallam ñaan ci moom digal yonent bi ne ko toogal amagoo digal toogal nga xaar maanaam digal yonent bi saa moom mooy wax digalam mu toog tamit di xaar mu yar wala boog mu yefal ñaari waruwaay nga xam ne ay ay fas la ñu su ko defee mu yefal waruwaay bi benn bés rek yonent bi sa salaam daal di jóg heure tisbaar nga xam ne waxtu wala woo ne bii ci yenn dëkk yi ba ci dëkk taax yi sax ñu bëri duñ dox heure su ko defee mu daal di jóg ndànk ci wàllu ci wàllu stratégie la bokk mu daal di jóg dem fi nga xam ne mooy kër Seydina Abubakar ngir bañ ku ko gis wala bokk ko ràññee ci ci maanaam ci dëkk bi ndax heure boobu nit ñaa ngi nekk di sies wala ñu nekk seen bopp bi loolu amee mu daal di dugg ki nga xam euh, fi nga xam ne mu fekk fa Abu Bakar as-Siddiq ak ñetti doomam mu daal di leen wax mu mu ne yonte bi saa saram ne ko génneel ñu nekk sa kër maanaam génn leen Abu Bakar ne ko euh, sang bi ñii say njaboot lañ ñii say njaboot lañ su ko defee mu daal di leen bàyyi ndax moom dafoo naroon wax ak moom loo xam ne ni buur kenn ku ko dégg mooy lan dañu war a gàddaay ndax loolu information la boo xam ne bu boo xam ne bu eggee ci xeet rek wala boobu bu eggee ci waa dëkk bi danañ maanaam danañ ko bunu xadaat su ko defee ci wàllu stratégie Seydina Omar nee la doxalee Suhayb nee la doxalee mais yonent bi saa salaam moom li nga xam ne moom mooy royuwaay bi moom dafa làqatu dafa làqatu ndax làqatu moom moo gënoon ci lu bëri ci jullit bi loolu amee Seydina Abubakar yonent bi annoncé ko li nga xam ne moom mooy gàddaay mu daal di kontaan bay jooy mu kontaan bay jooy Seydina Aïcha nee na moom musul gis nit bu kontaan bay jooy keroog la ko gis ci papa loolu li muy wan mooy ne moom bëggoon na yonent bi moo tax yàlla tudd ko ci alxuraan moom Seydina Abubakar maanaam junj ko ci alxuraan moom ak yonent bi su ko defee ñu daal di waa waa Quraysh def seeni pexe yàlla ne wa id yamkuru bika alladina kafaru li yuthbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuk wa yamkuruuna wa yamkuru llah wallahu xayrul makirin mu ne yonent bi sang bi fàttalekul fàttalekul bés bi la yéefar yi ñu ko doon fexeel ngir tëj ko wala rey ko wala exilé ko mu génn nee na ci jamono ji ñuy fexe suñu borom mu ngi fexe yàlla yëg na seeni pexe mais ñoom yëguñu pexe borom bi subhaanahu wa moo tax moo tax yàlla rek mooy borom pexe nee na wa yamkuruuna wa yamkurullah ñoom ñu ngi fexe mais yàlla mu ngi nos beneen fexe boo xam ne bii boobu moom mooy wéy te moom lay wéyal. moom la namm te muy woy wallaahu xayrul maakirin ndax yàlla moo dàqa moo gën ci fexekat yàlla moo gën ci fexekat ndax lan ñiy fexe yàlla dafa teg seen pexe waaye boole ko bosam su ko defee seen bos mu namul mu réussir bu jàll mais bu fekkee dafa dëppoo ak li yàlla bëgg da leen bàyyi ñu jàll moom mu jàll loolu moom mooy li xew keroog su ko defee ñu daal di pexe yàlla déjoué li nga xam ne moom mooy seen seen seen programme nan lañ doon fexe dañu décidé woon wala boog dañu waxoon fas ci giir bu nekk ci biiru Quraysh dañuy jël benn góor ku am doole kàttan su ko defee ñu jox ko jaas ko joxee jaas yi ñu daal di daje ci buntu yonent bi saa salaam buy génn fajar bi ñu corandoo ko jaas su ko defee deretam daal di tasaaroo ci xeet bi yëpp wala boog ci giir gi yëpp su ko defee kenn lu xam kan moom rey su ko defee gis yàlla ñuy joxe maanaam ñu ñu ñu joxe xam ne bi dafay compenser wala moom dafay tax dafay fay li nga xam ne moom mooy rey gi ñuy rey kon loolu moom mooy pexe ma mais yàlla am na beneen pexe yàlla daal di yabal li nga xam ne mooy jibril alayhi salaam ne ko gars yi dañu lay fexeel tey bu fi fanaan mu génn léegi convoqué ki nga xam ne mooy rakkam ne Seydina Ali radiyallahu anhu mu daal di ko buutu fi nga xam ne mooy fa la tëdd waaye tamit fay fayloo ko li nga xam ne wala boog dellooloo ko dénkaane yi nga xam ne moom lañ ko déggoon liñ koy weddi yëpp liñ koy weddi yëpp dañ ko daan dénk seen seen i alal moo woon seen banque fa innahum laa yukadibuuna yàlla nee na ñoom weddi wuñ la de walakinna daalimuuna bi ayaatillahi yajhaduun ñoom weddi wuñ la mais li ñu li li ñu weddi moom mooy aaya yàlla yi mooy alquraanu karim mais ñoom xam nañ ne bu baax xam nañ léegi loolu amee yonent yàlla yonent bi sa salaam daal di dem kër Aboubacar ci guddi bi mu demee mu fanaan bi mu fanaanee foofu Seydina Ali fanaan place am saa yu ñoom ñu ngi taxaw ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a ñu ngi taxaw saa yu nekk rek dañuy wéyandu ci néeg bi ñu gis ne am na tëdd si biir seen xel daal ba yàlla nelaw law leen ci guddi bi demee ba bés set ñu fëkk gis ne Ali moo fa nekk ñu jëflante ak moom waaye Seydina Ali daal di delloo li nga xam ne moom mooy ndénkaane bi bi loolu amee mu dem moom ak Abubakar ñu dem ci li nga xam ne mooy Gaaru Sawr benn grotte bu ñuy wax Gaaru Sawr mu ngi nekkoon entre sept ak huit kilomètres ci li nga xam ne mooy mooy Makka mais ñoom bi ñu jógee yoonu Medina bu nekkee fii ñoom ñaar moom Seydina Abubakar ak ak yonent bi saa salaam yoonu Medina bu nekkee côté bi ñoom côté bi lay jaay côté géej bu nekkee côté aéroport ñoom côté géej lañ jaay su ko defee ñu daal di leen maanaam jaxase seen programme maanaam bu ñu bu ñu yeewoo dinañ leen topp te bu ñu leen toppee duñ xam fan lañ leen fekk ñu daal di dugg ci xontu moomu dugg fa ñetti fan waaye dafa am ay ay jàngat yoo xam ne am na ci xontu bi ak ak dugg bi nga xam ne seen Seydina Abubakar dugg na ko ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xontu boobu la ndax. bunt boobu bi ci yonent bi saa salaam di dugg ak Seydina Abubakar ki nga xam ne mooy saxaaba dafa dugg aménagé li nga xam ne moom mooy bunt bi am sax pax moo xam ne nii jaan moo fa nekkoon mu daal di ci li nga xam ne mooy moom mooy ay yére su ko defee yonent bi saa salaam dugg mu lalal ko lalal ko li nga xam ne mooy manteau mu daal di tëdd ci fi nga xam ne mooy pooñam ñoom ñaar ñu nekk di waxtaan yonent bi saa salaam fa la ko waxee ne ko lan nga xam ci ñaar ñoo xam ne nii yàlla moom mooy seen mooy seen ñetteel nan nga xam ci ñaar ñoo xam ne nii yàlla moom mooy ki nga xam ne moom moo leen di aar su ko defee mu ne ko laa tahzan inna allaha maana bul jaax bul am jaaxare ndax yàlla mu ngi ànd ak ñoom su defee seen naa Abubakar daal di dal daal dal waaye Abdullah ibnu Abubakar mooy ki nga xam ne moom moo doon jógee ci ñetti fan yooyu moo doon jógee fi nga xam ne mooy Màkka guddi gi di indi information bi euh, information ci yoon bi sa di ko wax li nga xam ne moo xaw ci bëccëg ndax ñoom jàpp nañ ne moom dem na bi loolu amee tamit ki nga euh, waa Medina wala boog waa Màkka teg li nga xam ne mooy téeméeri gëlëm téeméeri gëlëm yoo xam ne képp koo xam ne ki indi nga bopp wala boog indi nga yonent bi saa salaam rek ak ki xam ne moom la àndal mu yow bàkk su boobaa nañ la ko jox am na kenn koo xam ne kii moom moo doon sàmmal Seydina Aboubacar ay ay gàttam moom dafa daan jaar ci li nga xam ne mooy mooy trace trace yi nga xam ne fala fala nit ñi doon dox pour dem ci Yonent bi saa salaam nga xam ne waa dañ fa daan dem guddi gi mais moom bu mu daal di fa jaar dem ba ca xaar bi tamit wala li nga xam ne mooy compte bi mu daal di leen jox li nga xam ne mooy meew ñu naan meew ci ñetti fan yooyu bi mu jeexee tamit ñu daje ak ki nga xam ne moom mooy Abdallah ibn Huraysit Abdallah ibn Huraysit mu nekkoon koo xam ne kii du woon jullit mais ku maanu la woon waaye nii li nga xam ne mooy yoonu maanaam yoonu Medina moom mooy ki nga xam ne ci troisième jour bi fekkee waxante nañ ci troisième jour bi mu daal di dem fi nga xam ne moom mooy euh, lieu de rencontre bi ñu daal di daje foofu bi ñu dajee ñu daal di commencé seen gàddaay fekk ne am na lu xew ci diggante bi sax ba ñi nga xam ne ñooy yëfari jaar nañ ci raaru Hira raaru saw mais fekku wala ba mu fekk fan yi nga xam ne mooy picc boo xam ne bi tàgg na foofu ak li nga xam ne mooy mooy jargoñ boo xam ne bi um na buntu bi su ko defee loolu daal di leen réeral yoon bi naw ko mais ci ñetteelu fan bi ci la ñuy génn ci lañ génn fi nga xam ne mooy mooy Médine ci yoon bi tamit am na xew bu fa am maanaam ci yoon Médine bi ñu bi ñu commencé démarrer yoon bi dañuy tase ak koo xam ne kii Burayda lañ koy wax bi mu tase euh, ak yonent bi saa saa mu ànd ak quatre-vingts personnes wala boog yeneen soixante-dix-neuf personnes muy quatre-vingts bu rey da waxtaan ak yonent bi saa saa ci diine islam mu tuub yóbbaale ñi nga xam ne ñoom ñooy giiram muy quatre-vingts personnes yu mu àndaloon loolu tamit nekk lu am solo maanaam ci mission yonent bi saa saa ci jamono jooju ndax moom des na wala boog des na treize ans fi nga xam ne mooy mag musul am wala boog amul lu ma deux cent personnes lu dul cent quatorze personnes la am mais mu génn ci benn fraction de seconde yàlla jubale ci loxo quatre-vingts personnes loolu tamit ay jàngala ci jàngalay jàngale yonent bi saa salaam bu am solo ndax muñ gi nga xam ne muñ na ko treize ans di woote loolu la ko yàlla fay ci yoon woowu ne ginnaaw loolu tamit dem nañ ci benn dëkk bi ñu defee ci dëkk ba ñu dugg ci benn kër maanaam ñu fekk benn kër ñu dugg fa fekk fa benn soxna di waxtaan ak soxna bi soxna si seen Abubakar ne ko ñun dañu xiif ndax amuloo loo ñu may lekk wala boog amuloo lu ñu lekk ci ay tegginam su ko defee ndaw si daal di leen xamal ne ñun man awma dara sama borom kër dafa sàmmi maanaam gàtt yi bu fekkoon a neewoon na fi xëy na dinaan leen mën a jox lu ñu maanaam lu ngeen suturloo fekk ne am na benn gàtt boo xam ne bi maanaam bu bu ndaw bu tuuti la woon amul woon soo amul woon benn kàttan yonent bi saa ko ndax mën naa ratt gàtt bi ndaw si ci wax jooju mu ne ko waaye gàtt bi amul soo mu dama lay ñaan rek nga may ma permission yonent bi saa sam ñaan ko permission su ko defee mu ratt li nga xam ne mooy gàtt bi bi mu ko lu nekkoon ci kër gi rek def nañ ci soow su ko defee yonent bi saa sam naan ba ba ba màndi waaye su ko defee Seydina Aboubacar naan la man mooy li nga xam ne mooy njëkk naan su ko defee ñu daal di continuer li nga xam ne mooy seen mission jëkkër ji tamit wala boog borom këru ndaw si bi mu ñëwee mu daal di laaj ne ko fi ñëwoon soo mi ma gis fii dafa bëri mais kan moo fi ñëw mu daal di ko tegtal décrire ko ko mu ne kooku mooy ki nga xam ne waa Quraysh génn nañ ko bu fekkee ne li nga wax dëgg la kooku moom mooy ki nga xam ne waa Quraysh génn nañ ko waa Medina tamit ci jamono jooju yëg nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñëw yëg nañ ne mu ñëw ndax waa Màkka bi ñu ko seetee ñetti fan jotuñ ko wala boo gisuñ ko dañ maanaam dañ ne kon moom war na egg Medina léegi su ko defee ñu nekk di ko xaar waa Medina bi ñu koy xaar benn bés rek benn juif yéeg ci wala boobu benn yëgul yéeg ci li nga xam ne mooy benn tàndam bu mu yëgee ci tàndamam bu daal di seen ñetti nit ñi ñëw léegi kenn ki nekk seen ginnaaw mooy daal ki nga xam ne moom moo leen du wan yoon wi Abdallah ibnu Mulaykit Seydina Abubakar ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di jiitu bi loolu amee ñu egsi ñu daal di leen teeru leen tatagal leen ci way yi nga xam ne yéen koy dégg talaaloon wa su ko defee gars yi daal di dajo dajee ci yonent bi ak Abubakar mais xamuñ kan moo ci sang ndax oyof yi nga xam ne moo nekkoon ci moom léegi Seydina Abubakar nekk maanaam di ko maanaam di ko entretenir ci noonu la ñu commencé comprendre li yëg ne kii kon moom mooy sang kenn ku nekk nag ci waa Médine daal di invité yonent bi sa salaam ci këram pour mu dal foofu waaye mu ne bàyyi leen gëlëm bi dañ koy dañ koy digal borom subhaanahu wa moo digal gëlëm li mu ko sant rek moom lay def mu daal di dem ci benn place mu daal di fa toog goor place boobu moom moo nekk tey kër wala boog moo nekkoon kër yonent bi saa salaam waaye moo nekkoon li nga xam ne mooy jàkkaam ja moo nekk tey li xam ne mooy jumaa Médine te foofu lañ ko sol sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit suuf soosu nga xam ne jël na ko ci xale bi wala boog jël na ko ci ñaari xale yi nga xam ne ñoom ñoo ko moomoon ñu nekkoon ay jirim suuf la soo xam ne nii daf ko jënd waaye nekk loo xam ne dafa ñëw mu jël ko dafa laaj ñan ñoo ko moom ñu daal di ko wax su ko defee mu jënd ko ci ñoom ci prix bi nga xam ne moom lañ ko doon jaayee. loolu nekk commencement wu maanaam islam nga xam ne fa la ñuy tabax li nga mooy jàkka comme ni ñu ko waxee tey sànq jàkka nga xam ne moom mooy jàkka ji nii yonent bi saa salaam commencé waat beneen ère wala boog beneen phase ci li nga xam ne moom mooy mooy mission bi nga xam ne commencé woon na ko lu jiitu 13 ans nga xam ne Médine phase la boo xam ne bii tamit dafa dafa nekkaat ci wàllu 10 ans moom mission bi nekk li nga xam ne mooy 23 ans. ba yàlla subhaanahu wa taala bés mu naan ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islaama diina bésu tey matal naa ci yéen sama diine waaye tamit samay xéewal matal naa ci yéen waaye gërëm loo naa ne islaam mu nekk seen diine kon yal nañu yàlla may dégg ak topp nakoulma tasmaona taqwa allahumma salli ala sayyidina muhammadin awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fi kulli waqtin wahin wa salli ala sayyidina muhammadin fil mala'il a'la allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa